بمقيده فله الحمد asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk jullit yi noo ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen baal xaq te di ko sàkku ci yéen ñu fas yéene ànd ak yéen ci diiru weer koor wi ci naafile yi ci guddi gu nekk di ko sukkandikoo ci téerab sëriñ Suhaybu bu Mbàkke bu tudd Qurratul Ayni di dimbalikoo kàttanul sunu borom subhanahu wa taala njëkk loolu ñuy sàkku ci yéen képp koo xam ne abonné goo ci seen youtube bii da Aynul Hayaat nga daal di gaaw daal di ci abonné ngir buñ dugalee naafile yi ngeen mën cee jot ci waxtu ak mbooleen yi am njëriñ ya fay am ci bëccëgu weeru koor wi yépp ngeen mën cee jot naafila guddik juróom-benneel gi nag ñaari rakka la rakka bu ci ne faatiha benn yoon ak qul huwa allahu ahad ba saar wi jeex fukki yoon ak ñaar sëriñ bi nee na julli googa day ku ko def من لكو جولي تا مقام ابراهيم جوني راكا جولي تا جاكاي مكه جوني راكا سارخ جوني درم للي جوني نيو خير تا بو نياني ديس نكو نانغو من لن ييت كو جوخ ندوغو خيتو يونت بي صلى الله تعالى عليه وسلم ويب تا بو فاتو ييت ني بوله كو تا نيا دي تي جيهات تا ديس نكو موسل تي ميتيتو دي تا بامي لاميت ديس نكو كو ديفال مو بوك تي دري ادجنا يا تا بوي ديك دانا اندك لير غو ملنا جانت بي دي خيغ گتو بو نيه te dana tàbbi àjjana te dees ko xisaab te ca mbooloom yonente yi alayhimu salaatu wasalaam lay bokk ba ëllëgee boo ko defee ñuy ñaan yàlla sunu borom subhanahu wa taala mu nangu ñu sunuy koor nangu ñu sunu jaamu yàlla nangu ñu sunu ay julli ci barke Seyxul Xadim jërë ngeen jëf والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عن همر الحدم رد الذي القيام والوحدة له لمن قلاني القلاء وعاتله ممن له